wallahi ladi laa ilaha gayru jéggalu yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku fa ko def yàlla dana ko jéggal walaw kaana farra min azahf nee na doonte da ku nekkoon la ci biir xare daw xam ngeen ni ku ne ci xare boo dawee te walli yow ma zahf ci juróom-ñaari bàkkaar yi gën a rëy la bokk waaye yonent bi nee na jéggalu yàlla bii boo ko defee même boo dawoon ci xare yàlla dala koy baal te mbokk yi ñu bëri ci ñun xam nañ ko waaye ndax yiw wi xam nañ ko mooy astagfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al xayu wa atubu ilay jéggalu yàlla bii laa ni yonent bi nee na ku ko def boo amoon bàkkaar bu rëy ba tolloog daw ci xare yàlla jéggal la say bàkkaar te li ci gën a neex mooy yàlla saa bu la jéggalee bàkkaar da lay ubbil buntu yiw saa bu la jéggalee bàkkaar da lay ubbil bunti wërsëg bunti xéewal saa bu la jéggalee bàkkaar da lay ubbil bunti nangu ñaan saa bu la jéggalee bàkkaar da ubbil asamaan ak suuf fu la neex dugg ci àjjana te mbokk yi mën nañ ko waaye ñaan bi mooy astaghfirullaha al azim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum wa atubu ilay mbokk de ko def ci fajar yi de ko def ci guddi yi say bàkkaar bari na lool lool lool te ñaan ubbi wërsëg ubbi xéewal bu gën a rëy jéggalu yàlla amut soo buggee su say xéewal bu xatee sa wërsëg xat bunt boo dugg mu tëju loo làmb mu tëju demal saxal ci jéggalu yàlla bi insha allah yàlla dala la ubbi loo amoon ci bàkkaar yàlla dala koy baal gis nga bii jéggalu yàlla benn rek moo ko gën a rëy benn boobu it mbokk boo ko mënee dee ko def lu bari mooy sayyidul istighfar sayyidul istighfar mbokk yi ku nekk ci ñun war na koo mën borom kër bu nekk xale bu nekk mag mu nekk ñun de góoru nañ ba suñu xale yi ndaw yi ñépp ko mokkal ñaan boobu da nga war a fexe sa waa kër ñu mokkal ko te gis nga loolu soxla boo am bu la neexee bul tudd soxla bi jàngal istixfaar boobu rek mooy sayyidul istixfaar boobu rek moo gën a rëy bii mën a njëkk wax mooy ban allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa waadika mastataat audu bika min charri ma sanaat abuu laka bi nicmatika alay wa abuu bi dambi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuba illa ant kii bi ko laajee yonante bi dafa ne mooy sayidul istigfaar jéggalu yàlla yépp bu ñu dajee kii mooy seen sang kon moom moo gën a rëy ban moo ci topp bi ma la waxoon léegi astaxfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi ban moo ci topp mooy jéggalu yàlla bi nga xam ni moom la yunus defoon moom la ñu tuddee duwaa Seydina yunus yunus bi mu nekkee ci géej gi def bàkkaar ba baleen bi wannu ko mu nekk fii zulumaatin salaas nekk ci lëndëm nekk ci kasoog biir nekk ci biir ndox nekk ci biiru jën deenar ko ba fekk lan la wax ba borom bi ne wallaahi bu jéggalu woon yàlla bu dul woon jéggalu na yàlla kon la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasuun lan la yunus wax yunus bi mu xamee reconnaître que ni def na bàkkaar dafa ni laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin mbokk yi jéggalu yàlla yaa ngoog étape yi ni ñu ëppantee bu la ci neex defal mbokk